salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum àdduna warngeel képp dalal jàmm TV ak ñaan non violence fan lañ nekk tey Médina rue 11 angle Blaise Diagne kan lañ seeti Serigne Abdou Fatah Guèye di doom si ndem si yàlla ji Serigne Modou Guèye Gandigal moom la ñu fas yéene feggool laaj ak tontu ñu leen di xamalee li ngeen xam ne nii tey xamoo leen ko woon si sëñ Abdou Fatah waaye tamit ñi daan dégg sëñ abdu Fatah dinañ dinañ ko gis waaye tamit dinañ ko dégg. waaye lépp loo xamee ni umpale woon na leen si Serigne Abdou Fatah incha allah si kàttanu yàlla si émission bii rek ngay jaar fii si Dalal Jàmm TV lépp leer si yow sëñ bi ñu dalal la fekk la Médina rue 11 angle Blaise Diagne en face deuxième porte stade Iba Mar Diop. aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmakim mbokki àdduna ñu ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di ñaanal comme ni ko daan defee rek ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yàlla na suñu borom fa seen bopp ba ñu jóg foofu ñu tëdd di ñaanal ñi nga xam ne it ñoo nekk ci prison yi yàlla na leen suñu borom génne foofu ba leen fa dugaloon dootu leen fa yóbbuwaat di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal it ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci sit bi di dalal jàmm TV. dalal jàmm TV yàlla mii borom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañ suñu borom jàmmal. déglu leen ñaa non violence fii si Dalal Jàmm TV mu leen di dégtal saa su nekk li leeni di jëriñ du leen lor Serigne Abdou Fata fekk nañ la Medina li ñu bëggoon xam nax yow waa Medina nga wala waa fan la waaw ñaa man dëkkuma Medina sunu waajur moo fi yoroon cabinet euh, depuis 97 ba léegi ñu nekk ay tout tànk nekk ci euh, ci ginnaawam ba keroog suñu borom di ko moom waaye ñun dëkkuñu fii ñun nebe la ñu dëkk. Gandigaal googu ngay dégg sax ñun dëkkuñu fa sunu magu papa ñu koy wax imam Cheikh Gueye Gandigaal maa ngi koy nuyu. moo fa nekkoon di liggéey moom sax dëkk fa waaye suñu borom moo ko fa may ay wërsëg ba mu fekk ko foofu suma waajur it am yeneen métier yi mu nekkoon bàyyi métier moomu dem ci médecine traditionnelle bi ba suñu borom woo ko fa ci ay tur yu bëri moo waral Serigne Modou Gueye Gandigal waaye ñun nebbe la ñu dëkk dëkkuñu fii nga xam ne mooy Medina dañu fee nekk di fi liggéey loolu moo ñu fi wàcc. tey ku jóge woon dakaar di dem nebbe bëggoon nañu xam nan na ngay def ba egg nebbe. waa Nebbe moom benn dëkk la ba nga xam ne mu ngi nekk ci entre Kaolack ak Diourbel entre Gossas ak Diourbel euh, boo fekkee da ngaa jóge Diourbel dem Kaolack soo génnee Diourbel euh, presque cinq kilomètres dëkk boobu dañuy wax Nebbe muy dëkk bu mag yoonu Murit euh, ñu def ñu def ñu def yu mag a mag mag yi nga xam ne taarix foofu la foo taxaw laajte Nebbe tëgg dinañ la fa yóbbu. ndax sëñ Abdou Fata jaar na si daara te bu jaaree si daara mun na nañoo expliquer jaar jaaram si daara. lu as néew pour nit ñi gën a xam ndax jàng nga wala jàngoo. waaw jaar naa ci ay daara yu bëree bëree bëri ja def naa umul xuraa def naa kër Serigne Abdourahim dem ak yeneen daara ak yeneen daara maanaam daara daal def naa ci presque fukki at ak lu teg loolu laa def ci ci ci daara jaar naa ci daal ay ati at. kon su ma la déggee alxuraan mu ngi sëddën. waaw ndaxte jàngale naa alxuraan avant may may may may def médecine jaar ci yeneen métier yu bëri def naa mécanicien moto maçon def naa fondeur mooy yi nga xam ne moom la ñuy defaree euh, aluminium yi pour jigéen ñi bu ñuy sëy seen euh, kii cin yu mag yooyu noonu liggéey naa ko liggéey naa maçon yi 4 mois waa ji fayu ma <laughs> bu fekkee mu may gis dama fay sama xaalis <laughs> yooyu yëpp jaar naa ak yeneen métiers yi nga xam ne mënumaa lim lépp lépp wax dëgg yàlla jaar naa fu bëri daal. ah kon su ma la déggee ba léegi yaa ngi sa xel jogul si lañ la yore loon si wàllu métier maçon ba léegi sa xel si da ngay jégal waa ji wala dangay xaar mu fay la ba léegi. man waa ji moom du ma ko jégal ñaar parce que guddi yooyu noonu dama doon dund guddi yu méttee méttee méttee méttee xam nga man tamit taxi naa jakartaa doon taxi jakartaa léegi na affaire yi xaw a métti waa am ay sànce yu état bi joxe woon mu ñëw fa doon liggéey léegi na man ma bay ba nawet jeex mu yóbbaale mu dëkk bu ñuy wax mbos def fa deux mois après ñu dem ñiibi waa ji liggéey loom ba sama weer yëpp jeex war a xam nga pointé lañ koy wax maanaam sëg da ngay bind bi ma waree fayee ko rek waa ji na fes koo xam nga kon man ma woo jégal ñaar waaw loolu loolu demee rek. <laughs> waaw mu mel ni laal nga tuuti si wàllum métier taxi Jakarta. Mhm. te def nga mécanicien tamit euh, moto. Euh, mën nga ñu fàttali tuuti rek si si sa jaar-jaar si wàllu mécanicien moto euh, lan moo la si gën a neex ak lii la si gën a metti si jaar-jaaru mécanicien moto. waaw li ma dugg di jaay affaire yooyu ba yàlla def ma ma dugg ci kaso. mais nag da xam ne maanaam àdduna lépp lu la sun borom teg ci àdduna maanaam dafa dafa jiitu sab juddu. maanaam nit ki dem na kaso mais bon yóbbu ko foofu maanaam accident de travail sa biir métier loolu daal laa xam ne ñaa daal moom a gën a metti ci sama ci sama métier boobu ma newoon waaye li ma ci gën a neex mooy maanaam connaissance bi ngay am ak nit ñi ak jàmm ji ngay am ak maanaam métier daal loo ko mën a koo jar te tey su ma demee liggéey mooy damay xëy dem liggéey de man néew maanaam ci métier man jeune laa damay liggéey tey néew ma ne sama papa dafay def nekk ci métier di liggéey tradipraticien damay su ma liggéey damay dem sama rakk yi ñoom ñu ngi parcelle seex Euh, di jàmbaar ma dem foofu liggéey maanaam basé wu ma fii di sol ay bolok affaire yooyu noon damay liggéey. mais boobaa loo fay liggéey boo demee parcelle. damay liggéey mécanique di jaay ay pees di liggéey sama place damay may liggéey foofu di jaay ay moto affaire yooyu noonu ndaxte man néew ma rek damaa war a sa nekk rek di basé wu ci benn métier quoi. kon yow bu ma la déggee solo ay ay xaftaan ak ay bolok gàddu kurus ah euh, yor téere yi nekk si garab yi euh, yow basé woo si loolu mais comme nee nga yow jeune nga euh, il faut que si sa âge bi nga toll nii foog nga daan sa doole loolu d'accord naa si jeunes yëpp war nañoo rey si ko mel nii si wàllu demee noonu beneen bi si mooy wàllum taxi moto ndax taxi moto dafa nekk loo xam ne lu dangereux la te lu metti la ak li la xam ne nii mënoo ko fàttee metti na la si. waa c'est nit ñi dañ lay xeeb dañuy gis nit yor jakarta duñ la nawloo mais jakarta daan sa yaa ngi si daan sa doole am ñu ci yor seen kër yor si seen i jabar yor si seen i doom mais métier bi li ma ci gën a metti mooy loolu nit ki dañuy dañuy dañ lay xeeb war a ku la gis yaakaar na yow moo la gën jakarta liggéey la parce que réew mi amul liggéey moo gën sàcc moo gën agressé moo gën këf alalu jàmbur ñu ci nekk dañuy daan seen doole li ma ci gënoon a metti mooy xeeb bi ñu lay xeeb mais li ma ci gën neex nag mooy comme loolu ma la wax connaissance bi a xëy dem liggéey dóor sa waar ci dem tëddi. mais xeeb bi si lan la dañ le si waxin bi ngay wax la wala solin bi la wala moto bi nga yor lan moo tax nit ñi di la xeeb. mais xam nga maanaam ñëpp bokkuñ yam am na ci ñi nga xam ne dañuy yor jakarta xëy sol lu set dem liggéey wàcc jot mais am na ci nga xam ne dañuy sol yëre yu set yëre yëre yu yëre yu salte seen tànk yi ku leen ku leen gis da leen di seexul daal du leen respecté nit li nga mën a nekk si ngay nawloo sa bopp comme maanaam comme yooyu yenn saa nit dina la xeeb wala mu am yi nga xam ne da koy wax te du la neex affaire yooyu noonu daal parce que nit ñi bu la gisee ngay dawal jakarta rek pour ñoom yow sàcc nga da ngay dégg borom extérieur yi xoolal ñooy këf téléphone fekk ñëpp bokkuñu yam am na ci ñi nga xam dañ am na ci ñi nga xam ñu ma ñu ma ci xam dañuy daan seen doole di xëy di wàcc. su ma la déggee si wàllu daara tey boo doon euh, euh, sensibiliser maanaam di ñaax ñi nga xam ne ñoom la ñu joxe si daara bi lan nga leen di wax ndax daara dañuy wax ne yombul neexul Euh, mun nga ñu si fàttali tuuti si ay tartar euh, nitu ndongo daara nan la war nan lay dundee ba egg fi mu egg. waa daara moom naa ku wax ne la neex na daf lay tilim foo nga tarbiyewu maanaam alxuraan kenn mënu ko ame ci noonu daara moom neexul man jéng nan ma presque deux ans mu waral sama tànk yi def nii dan maa jéng jéng jéng ba sama tànk yi nii la def mais loolu lépp alxuraan mënoo ko amee noonu foo nga dund maanaam tarbiyewu maanaam tilim. pour nga pour nga pour nga mën a am la mais nag après loolu lépp sa njariñ lay nekk. mais am na ñu xamul jéng. jéng mooy maanaam euh, dañuy jël ay ay euh, chaîne ah, euh, boole sa ñaari tànk comme njàppum jaam na mu daan amee nga xam ne ni tubaab yi dañ daan jaareele sunu maam yi gore dañ leen daan jéng jéng seen loxo jéng seen baat jéng seeni tànk ndongo daara nag yàgg na si jéng ay tànkam bu dee day jël. wala muy walla loxoom di def loo xamee ni kenn sant ko si daara dañuy jëng ay loxoom waaw moom nag dañoo jëngoon ay tànkam ngeen bàyyi xel si ndongo daara euh, jëng bi du question dañ lay jëng pour pour toroxal la mais dafa am benn jubbanti boo xamee ni moom lañ lay def te kenn du la euh, bàyyi noonu mais foog ñu jëng la waaw mais nag est-ce que mun nga ñu si fàttali loo xamee nii lu la neex la waaw essant yi nii ngay mën a xam li la neex mais jamono bi nga ciy toll man sama waajur jamono yooyu dama ne woon ne kii dafa ma bañ quoi lu tax moo tax man sax jéng ma jéngoon lu jéng chaîne man dama ma ay weñ jéng ma ci ma si man noonu lan ma jéngoon parce que maa njëkkoon nekk xale bu tribul suñ ma jéngee ay xomba yi dama koy dindi daal di daw ñëw Dakar affaire yooyu noonu mais dan may yóbbuwaat mu ma yóbboon nag dan maa bi ci min sa métallique bi ñu suude ma foofu jéng ma fa mais après jamono yooyu noonu yow doo mën a xam sa waajur lim la bëggal mais instant yii nii ma toll tey nan la mel si yow euh, ak ban xol nga si am ak ban xel nga si am euh, bi nga rombee étape boobu tey ba toll fii nga toll nii uutu sa baay si bérébu liggéeyukaay bi tey jéngu yooyu lan la la lan la la yokk ak nan la la changé si yow. li mu yokk ci man bëri na parce que dama cee sant yàlla bu baax a baax a baax tey loolu noonu su ma dalutoon tey ñaa lii ma gérer du ma ko mën a gérer mais maanaam dama dund ay ay ay ay tar tar ya nga xam ne sax mënu ma koo wax sax par maanaam par ay émission ak affaire yooyu mais loolu noonu ñu ma doon def tey tey moo waral bu ñu yàkkamti bëggu bëgg ndaw dañoo bëgg xëy tey am tey tukki tey tekki tey te loolu mënul nekk moo tax àdduna da ngay def ndànk-ndànk maanaam dara xëyul sotti maanaam yu métti yooyu ñu ma daan dundal ci daara ji tey jii man loolu moo mën a jariñ tey. Euh, mu mel ne Abdou Fatah fi nga jaar bëri na macha allah euh, di la gën a encouragé waaye tamit am na lu umpalee ba léegi ñi lay seetaan euh, si jëmm ji bu ko defee Abdou Fatah ndax yow. dañ la fekk ngay nekk si di liggéey si wàllu médecine traditionnelle yow da ngaa tëb tëb rek eh, sa baay génn àdduna nga ñëw gérer liggéey bi wala da nga am foo jaar si wàllum njàngum médecine traditionnelle wala nan la demee ba nga mën a yow am expérience su méccum traditionnelle loolu bëggoon nañ ko xam. waaw ñaaman njëkk naa dugg ci médecine traditionnelle entre 2016 2017 boobu ma la waxee dama jógee si jéng noonu. bu ma jógee euh, fi mu tuddati Diourbel fi mu ma jéngoon kër Cheikh Abdou Dieng dama ñëw rue 17 angle boobu sama papa ngi nekk fii rue 11 angle angle 18 en face stade bi man ma nekk rue 17 angle 20 ku ñuy wax Alsaan moom fa aaloon benn néeg entre 2016 2017 ma nekk fa di liggéey médecine traditionnelle affaire yooyu noonu ba yàlla def nag affaire xawul dox ndaxte da ngay dégg doon concours ak waajuram affaire yooyu mais man médecine lu ma judd la lu ma xam la maanaam man moo tax maanaam li muy wax ni boo gisee médecin yi li tax ma def entre man ak ñoom parce que man li may li may expliquer day nekk ñoom lu ñuy liggéey man li ma leen wax day fekk ñoom ñu tiim ko parce que lii man lii lu ma nàmp la lu ma xam la looloo tax mais xëyuma xëy rek sama waajur génn ci euh, àdduna ma ne damay nekk médecine traditionnelle nekk naa moom Touba ay ati at ñu nekk fa di liggéey ba métier mi amul dara dara dara la nga xam ne man umpale na ma ci noonu la demee. waaw que amul fenn foo xam ne nii jaar nga ko jàng ko fo si wàllu médecine si daara ji nga ko jëlee wala fan ak fan. médecine gëstu naa ci lu bëri dem naa ay dëkk yu bëri ya nga xam ne dama fay dem ci xam garab bëgguma tudd ne ci fii laa doon dem ak mais man dama gëstu lu bëree bëri dem naa ci ay dëkk yu bëree bëree bëri ngir gëstu donte dondu doyul mais fow nga dem jàngi. maanaam dond rek ne sama waaju da doon liggéey ay garab rek génn àdduna foofu ma dem du noonu dond neex na mais foofu nga dem jàngi nga jàng ba pare mën a xam li ngay liggéey parce que nit ki lu muy liggéey lu ne war na cee xool digganteem ak yàlla parce que dee moom ñaa bul xam fu mu lay fekk ay aynamaa takuunu yudrikumul mawtu wala kuntum fii buruujin mushayyada su borom dafay wax foofu mu ne dee moom alaa kulli aalin kenn mënu koo raw kon tey su fekkee ne nekk fii di nax nit wala ma nekk si naka noonu ba anam yooyu dee fekk ma kon ñaa lan laay wax suñu borom tey yow gis nga sama waajur ci anam yi mu demee anam yi nga xam ne dafa dañoo liggéey ba ay deux heures trois heures mu tëdd di nelaw noonu la continuer man tey su fekkee ne dama nekk fii di nax ay nit di jaay ay produits yi baaxul di leen daaj seen résultat di leen traité wéruñu léegi man ñaa lool suma ma dee ci loolu noonu su ma demee lan laay wax yàlla kon man li may liggéey ni lu ma ci man laay def lu ci manul du ci def mais ci maa ngi ciy bëgg a yàgg kenn mosuma dégg ci lii wala ci lële lu ma mënul mënuma ko lu ma man rek laay def te lu ma digaaleeg ak doomu aadama dama koy def man noonu laa xam ne moom laay dundee Euh, tey soo ma doon wax euh, abdu Fatah sa moroom yi nga xam ne yéen a tolloo jamono euh, yow nga am benn jaar-jaar tey boo leen doon ñaax en tant que góor ban taxawaay la war a am si société bi wala ban taxawaay la war a am si njabootam wala ban taxawaay la war a am si réewam loo leen di wax. taxawaay bi nga war a am ñaa comme li ma daan wax dëgg nit góor da ngay da bañ ba keroog ngay sàngoo suuf bañ di tàllal sa loxo jël alalu jàmbur même su may xëy dem di di emballage ay tàngal dama koy def. mais góor moomul xëy toog ma li ma gëm mooy ñaar liggéey liggéey yaakaar naa lu ma mënul ma mënul may si àdduna gëm naa ne mënu ma ko am moo tax li ma leen di ñaax moo ñuy xëy dem liggéeyi di daan seen doole am sa soxla làmb sa poos faj ko dara dàq ko ñaan kon nan dem liggéeyi gën a avancé loo dëkk bi. ñu bàyyi la rek nga tëj sa émission bi ñu amoon ak yow si Dalal Jàmm TV nga àndoon si ak ñaan non violence euh, bu ko defee ñi nga xamee ne nii tey ñooy mbokk yi ak waa Nebbe ak ñi nga xam ne ni ñooy say patient say client rawatina ñi nga xam ne ñooy say mbokk jege la. waaw maa ngi maa ngi nuyu waa Nebbe gee nga xam ne foofu laa dëkk ndaxte Olof Njaay lu mu waxati sax ñaar nit mënul riis a riis ba riis fa mu gën a jud fa mu fa fa mu juddoo daal mënu mu am lu gën lu gën ñee. àdduna nag du ma du ma du ma du ma jay mukk mukk mukk mukk muk ba ma bàyyi sama nit yi man nebe laa am moom laay tiitaroo fu ma man di taxaw nag ci àdduna comme sama waa ji na ma ko daan tiitaroo donc doon wax ne ko Serigne Modou Gueye Gandiga mu ne la non di di nebe man nag loolu laay tiitaroo man nebe moom ma gënal Paris waaw man fu ma man su fii sax di dem foofu damay kontaan su ma defee fii ay deux jours damay su ma damay dem foofu noonu kon di leen ñaanal jàmm la di wax état bi mu jàppale ñu foofu bu baax a baax a baax bàyyi bu xaala xalaataat jeunes yi xam ne foofu metti na mbay mi demewul noonu gëstuwaat ñu daal waaw loolu daal laa xam ne daal di nuyu sa ñoom baara taaliba sëriñ Fallou Fall ci laala ba ca parcelle eh, góoru ami maa leen di nuyu Badara Gueye suma waa kër ñëpp daal sama ñoom maam ku lim dafay juum mais maa ngi nuyu ñëpp di wax nag ñoom baara ñu ngi préparé màggal gi pour ñëw dalal si leen kër sëriñ Fallou Fall loolu daal laa xam ne di nag eh, di kii suñ cameraman ak ñoom ñima ñoom ñëpp aadama waaw ak ñimaa ñoom ñëpp nag liggéey bi gis nañ ñi nga xam ne Euh, taxawu nañ ci wax dëgg yàlla loolu lan xam ne moom la ñuy ko quoi. jërëjëf mbokk yi dalal jàmm TV ah ak ñaa non violence bëgg jàmm foofu rek euh, la ñuy yamandi euh, di leen dégg daje incha allah si beneen numéro. bukki mbëkk bunt bant damu bënn bëtam jàmm gën jayante jàmm gën jëwante jàmm gën jamaa jàmm gën jaamaarloo lu dul jàmm jàmm ko gën képp kuy doomu réew mi Sénégal woo na la si jàmm ay xam nga fa muy commencé waaye doo mun a xam fa muy yem Serigne Abdou Fatah nee na jaboot jàmmay mbokkam merci beaucoup Adama merci beaucoup Ñima jërë ngeen jëf